ministre Ismaïla Madior Fall xam-xamam moo jeex c'est un constitutionnaliste moo taxoon ne nul nul yéen koy fàttali trois fois donc xam na ne bu dee ci côté droit rek foofa wax dëgg yàlla am na sursaut peut-être nee na dootul foofu léegi affaire politique la waa constitution la ñuy wax wala politique la ñuy wax président bu ko neexee mu wax waxaat leneen dañ koy jox cër bi nag parce que mooy président de la république waaye li mu wax mooy président bu ko neexee mu wax bu ko neexee mu waxee man dañu defoon ne loolu pare nañ ci dañu defoon ne wax dëgg yàlla ba ñu ànd ak président defoon nañ ne la nga xam ne moom la ñu xeexoon deux mille onze quatorze personnes ñàkk ci seen bakkan du ñu ñëwaat deux mille vingt trois wax dëgg yàlla di nekkaat ci même problème mm-hmm. ñun de ñu àndoon ak moom en tout cas man Amina la Touré yaakaar na ko woon sooy maa jox nag lu ko neex moom bu ko neexee mu wax waaye defe naa ne au moins il s'est rendu compte que en matière de droit il n'avait plus d'argument moo tax il a glissé dans le domaine politique le président de la République il est tenu par le respect de la Constitution mais dëkku yi ñu xam seen constitution yi ay deux cent ans trois cent ans quatre cent ans li bokk ci stabilité seen réew lool la ñépp tënkandoo seen bopp ci benn charte bu ñu tuddee constitution waaye man dama bëgg a toog ci nguur gi rek bëgguma dem donc su ma neexee la ma signé woon ak la ma sénégalais yi woteeloon ma teg ko ne def li nga xam ne moom laa bëgg a loolu démocrate yi duñu ko nangu mais chantier dañuy dox chantier yi dinañ ko ko yeggale nañu ko def voilà ëpp ñu xam-xam ëpp ñu ëpp te dem voilà dem noppalu danañ ko ko continuer ba yokk ca yokk ca bonne gouvernance yokk euh, argument amul foofu